xam nañ koy Amadou Mokhtar Mbow mais ñun nag ki ñuy xam mooy ki lëgg ci politique bi mm-hmm. wala ki ndagar wale mm-hmm. Mm-hmm. ñun ñooñu kooku la ñu xam waaye ma Amadou Mokhtar Mbow bi ñu soxlaa Assises nationales xel yi ci moom la dem ah jamono bi ñu soxlaa bindaat suñ suñ démb mm. xel yi ci Iba Der Thiam la dem la ay ay nit ñoo xam ne ci réew mi. wallaay wallaay daa mel ñàkk ay kàngam nag. waaw. waaw ñu mag la ñu nag bu ñu leen ñàkkee defal leen hommage nangam ak nangam nangam mu jeex. Mhm. tuddee leen nangam. waaw ab université wala nangam bu ñu ko tuddee mhm. waaye ku ku am solo la woon. Mhm. te it dégg ko ci léxoor mbaa ñol-ñol nangam kenn mësu ko def. kon moom marqué na jamonoom. kay bu ñuy bind démb réew mi. bind na ci aw turam. wallaay jamono bind ci aw turam. wallaay wallaay ndeysaan. Hmm? wallaay ndeysaan. yàlla na bàmmeel dina flaayam. amiin na àpp sore. amiin yàlla na yàlla may xol boo ko muñ. amiin yaa waaye ku ku ku am solo ci penc. amiin yaa rabbal aalamiin am taxawaay loolu oustaz. ak mhm. at yim nga xam ne doon na fi ministre. Mhm. doon fi directeur ci ay barab yu bari. waaw ànd ak loolu yëpp daa mel ne mës a teggi tànkam. dafa mel ne àdduna daal oustaz jaar fi ba jàll te mel ne jaaroo fi rek mooy gàcce maanaam ku fi jaar ku ne war ngaa bind ki maanaam ci taarix saw tur mhm. hmm. loolu loo loolu mooy nit di loolu mooy nit sëñ Mbàkke boo jàngee téere bu tudd xoqal bukaaw xoqal bukaaw ndeysaan al bukaaw ñu ko doon jooy mhm. hmm. asamaawatu waaw wal ard asamaawatu wal ard mhm. ka samaawaati hmm. mooy kon li nga ciy dégg mooy dana am ku fi jaar koo xam ne kii asamaan jooyu ko suuf jooyu ginnaaw xoqal bukaawu ala saadatin amwaati hmm. kon am na ñoo xam ne laa yaxiqul bukaawu alayhim am na ñoo xam ne asamaan du leen jooy suuf du leen jooy parce que ñoom ñëw nañ ci àdduna ba dem inscrire wuñu hmm. inscrire wuñu hmm. est-ce mais oustaz ku mel ne Amadou Mahtar Mbow mii nga xamante ne am na ñu ne ci politique bi moom nekkoon na ci am nañu amoon xam-xam jaar ci nekk moom nekkoon na ko lan lañ ciy jàngee rawat na ñii dund te demaguñ ndax woy wu rafet bi mu am ak jaar-jaar bi am waaw ooy rafet mbakk li koy maye. Hmm. mooy jom ak taxawaay. jom ak taxawaay. mooy maye wooy rafet. jom ak taxawaay. jom ak taxawaay barkalla. ndax sunu borom def ne yéen ñëpp am nday hmm. yéen ñëpp am baay. Hmm. ku am jom raw say morom. yéen ñëpp am ndey. am baay yéen ñëpp am baay. waaw ku am jom raw say morom loolu firil ñu ko. mooy. borom bi daa wax ne. <clears throat> innaa xalaq naa ko min dakar. bàyyi ngoog. wa unsa mhm. yaaye ngoo loolu moom ñëpp ko am ñëpp ko am mhm. wa jaalnaakum shu'uban wa qabaa'il waaw ku nekk fi la sa baay boole ku nekk fi la sa yaay boole ku nekk am nay mbokk jeex na léegi nag problème mooy hmm. inna akramakum hmm. inna akramakum kii ëpp teraanga fii ëpp ko teraanga fa yàlla atqaakum mooy ki ëpp jom masha Allah jom rek jom rek suñ bàkk lu dul ak yónent fi ne nit mën na koo doon nga dëgg de. Mhm. Mhm. lu dul ak yonent. nit mën na koo fi ne nit mën na koo doon. buntu yonent rek moo tëju. moo tëju <laughs> dégg nga. waaw te jikko yi fi nekk mi ngi fi. Mhm. ku sol dem. dëgg la ku sol dem. ngi aju rek ci am jom ak taxawaay. rek oustaz ñaari baat yi nga wax ni neex na ma lool. alhamdulilah jom mooy lan oustaz. jom mooy koo xam ne suñu mbàkkee. Hmm. jomb naa def lii lay wax. Hmm. Eh, dañoo amoon suñu mel ne maam. Hmm. maam Thierno jóob waaw maam Thierno Diop. nga dëkkoon ca Louga. Hmm. kër du Yàlla. ndeysaan wallaay ndeysaan sët la ci Lat Joor. Hmm. tarkal mu am lu sikk ca tànk ba. waaw docteur ba ne ko dañ lay anesthésie mu ne mooy lan mu ne ko dañ lay nelawal opéré ko. mu ne ko su ko déggatee ñibbi. Ah. waaw. maanaam dañ dañ lay nelawal ngir dagg sa tànk. lu tax ngeen may nelawal door dagg sama tàgg bi. maanaam moom daa jàpp ne loolu du njàmbaar. <laughs> daa war a xoolee ñu koy dagg. waaw mais kii dañu wax ak moom maam xam na ko. Hmm? nu ñu def mu li ngeen di bëgg a def def leen ko bu ngeen di dagg bu ngeen di ñaw bu yéen a xam. Hmm. noonu lañ ko mujj def. tey tey. waaw. Hmm. noonu lañ ko mujj def. léegi. façon yooyu mooy mooy mooy jom. jom jom. Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Mhm, ndeysaan. radiyallaahu anhu. amiin dañuy nekk dafa mës a jóge Taïf bañ koy door di sañc mhm. xam nga ci àll yi day bëri ay jaanaki ay jiit. ay jiit dëgg la fi wékk mbubb mi jiit dugg ca. Mhm. mu sol ko jiit ji di ko fett ilaa Tuubaa. waaw. soo defee nii xam nga moom foo ko tàncee mu ne taw mu ne taw bu bu ba noppalu ba dangar jiigaa rek mu mu fettaat hmm. moog moom moog moom ba tubaa hmm. mu bi mu wékk ko mu wékki mu bi hmm. daal ne <clears throat> taalibe bi seetal ma li ma doon màtt ci mbub mi mu yëlëb ko muy muy muy jiit muy jiit taalibe bu xam laa ilaaha illallaah bi mu koy dàmpaloo fi mu ko doon màtt waaw <clears throat> ne ko mbàkke lii mu ne ko lan. matt ma jiit war naa tax góor di raf. wallaay jërul yàq programme yaay <laughs> kon oustaz jom su ma la ci déggee yaa ngi wax ci muñ yu metti yooyu. waaw ay fee nga tudd yu dal ci yaram. waaye noonu itam lay muñe kon ay bëgg-bëgg yoo xamante ne day jaar ci kanam nit ki te mën a yàq awooyam mën a yàqu taggam mu góorgóorlu ba du ci dugg. loolooy jom. Hmm. loolooy jom boo ko dëgmalee nag. Mhm. ña demul ñëpp na toogal. Mhm. bu dëgg ma lay jom. Mhm. ñi demul ñëpp dina la toogal. dina la toogal kon daa am ñoo xam ne demuñu dem. bëgguñu ko bas boo demee weer leen. ñoo naan la toogal. toogal. ñoo perte. déggu alxuraan laa tasma'u li haadha alxuraan déggal. Mhm. loolu mooy. bu leen déglu alxuraan ji ndax day jox day joxe jom. <laughs> wa alxaw fi yuuxu leen. waaw yuuxu leen. yuuxu leen. waaw waa ji di jàng wax ji am njariñ fexe leen ba dugal ci ay yu kenn xamut jeex na pour détourner message moo tax fi ne message a ah, message bu jóg jóge ci ci ab mm-hmm. wala ci nangam mm-hmm. nit ñaa ngi koy déglu mm-hmm. est-ce que amul lu ca yàqu bañ la tëll waaw alxaw fii laalakum taxlibuun laalakum taxlibuun wallaay kon oustaz euh, ñaare bu nit yaa ngi tudd léegi professeur Iba Der Thiam mhm. ci taxawaay mhm. euh, nga xamante ne nekk na fi ba jóge fi kenn tudd ko ci luñ koy xeer ndeysaan wax dëgg yàlla mhm. Amadou Makhtar Mbow mii assise nationale yi mujj ndax yu ëpp ci ay activité ñun ñu euh, mujjee ñëw dañoo fekk booba mu magal daanaka dañ la koy nettali ndax koo xam 1921 la gane àdduna kooku nekkoon bitim réew jaar ci jaar jow jaaruwaay yu bari waaye assise nationale taxawaay yi mu ci amoon ak idée yooyu bu ci Sénégal tegu woon ci wàllu démocratie am nañ beneen lecture boo xamante ne ñu ngi koy tàmbulee am loolu oustaz ñun ñuy dund rawat na way politique yi nekk ci moom lan lañ ci war a jànge gis nga bu ñu gémmiñ duggutoon bu ñu gémmiñ duggutoon waaw weesu noonu fii hmm. waaye gémmiñ daf ñoo dugg tey euh, jom jooju ngay wax di ko hmm. junju waaw jom su ko ñun masaana am hmm. ñu ngi nettali Serigne Lamine Diop ndeysaan dafa masa nekk directeur général douane ñu war a génne ci port bi ab oto. un million cinq cent wala deux. waaw moo koy génne. moom mooy directeur bu li koy génne. xam nga lu ñu doon hmm. ok ak tamponné. Hmm. mu génn. mais deux millions yi fu muy dugg. Hmm. loolu la affaire bi. question la question la. bi mu demee gars yi la la ko ba ne ko deux millions koy génne. dafa bind sec. ñu domp ca lam am ca banque ba fayal ko sëriñ ba mu génn oto bi ne cell allah allah jom mhm. suñ mbàkke da ngay dem màkk armal ñu ne la bul rey nangam waaw bul rey nangam bul rey nangam mhm. dagg garab mhm. yooyu nit ki def koy moytu di ko moytu di ko moytu ba aj ga jeex léegi lu tax mu cee duggaat wallaahi waaw kon jom jom su mu woon da fa wàcc donc loolu mooy jom. moo tax ñi amoon jom. kees gi seen yoon nekku ci. milliards yi seen yoon nekku ci. Mhm. nanga moom daal nañ def li leen war. Mhm. wasalaam. dëgg la macha allah. du dëgg su ko defee way way wi nekk fi ci rafet boo génn àdduna wa naktubu maa qaddamuu wa aasaarahum. wallaahi ndeysaan wallaahi. way wi continuer di rafet. dëgg la dëgg la. yàlla ñu yàlla may jom amin yaa rabbal alamin jërëjëf yàlla na ko yàlla yërëm kon amin euh, yàlla jéggal ko yóbbu ko ci aljana ya gën a kawe amin mu maam jooju Ahmadou Makhtar mbaw mhm. euh, mu des fi doon am njàng ndax loolooy àdduna jaar-jaaram ba ba àdduna di tukki ñu koy jàngal ndaw ñi moom itam euh, di di xam naa ak njabootam itam di sagu ci moom mhm. suñ borom def dundam ngi mu doon dund gu barkeel mhm. oustaz dama ciy teg beneen tomb boo xamante ne Pape Doudou dañuy dem Amérique